Kumba Koo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay seen ngi am jàmm. yal na yàgg te wér. lan moo waral sa teewaay ci bésu Baye Ciss bi. waaw Baye sama mbag la. xam nga di anniversaire. ñu ñu war a ñëw. fekkee ko partagé ko moom parce que xam nga nit boo xam plus de trente ans. dootul étranger ci yow. su dee. seetloo Baye Ciss dafa nekk nit koo xam day yëngu ci wàllu social. ñu bëggoon xam lool noonu lan moo ko waral. waaw parce que xam nga àdduna su la yàlla dimbalee day dimbali ña nga tane loolu la rek chaîne buy tourné la mais lii ci bàyyi xëy na ñi ko xam tey ñooy wax mais ñu ñu ko xam démb lii daf ci juddu màggee ci lii bett ñu xam nga parfois nga dégg benn ñu ne mi ngi def lii xëy na tarangaa ko dab mais bàyyi depuis bi mu nekkee xamee ràññee di liggéey day dimbali ay doomu aadama man suma mag la ñoo bokk nañ koñ xam nga partager beaucoup de choses ñu nekk États-Unis ma ñibbi si moom mu continuer donc Baye xam naa ko c'est quelqu'un de positif man du ma géwélu kenn du ma ni kenn yaa lay dimbali te gisu te nammuma dërëmu kenn mais lu ma wax lu ma gëm la Paco yow porteur de voix nga noo jàngate élimination Lions yi metti na mais je pense que nii la yàlla bëggoon mais on n'a pas été ridicule Sénégal boo mënoon Colombie mais yi ci laxasoo bëri kenn mënu wax lépp da ngeen may woo ñu toog waxtaan ñu feeñal lépp yàq-yàq bi moo bëri il faut ñu ko doo dem duma dem keneen du dem. toog yaa ko dara neex saa yoo leen bëggee bare naa ma. tat. jeex na jaajëf te